tay dañu amone ndaje pour jox xalé yi seen euh, attestation yi nga xamni day jëmmal formation yi nga xamni ni euh, mën ni bénéficier wu nañ ko ci semaine bi ñu genn ci Thiès muy formation yo xamni dama ko lancé won ci Thiès pour may ko jeune Thiès yi c'est vrai que formation biñ ko lancé nak ñu ci inscrit won bari na ndax ay jooni lañu won jogé fu nek mais wa Thiès ñu ni dañ ci jël juróomi téeméer commencé ak ñom tay juróomi téeméer yoy paré nañu ba jox nañ leen sen attestation mais dama ni duñu yem rek ci lolu dama lay indil ñaari mbir dama ni ñi nga xamni bëgg nañu gëna xarañ ci formation ci métier numérique yi ñu tannon nañu jégué pôle emploi bi nga xamni président Lab daf ko ubbi ties pour ñoom ñu bénéficier bourse yi nga xamni 3FPT daf koy mayé pour ñu mëna gëna am xarañté moy ñu fay leen jang peut-être 1 an 2 ans pour ñu spécialiser wu ci gën ci xarañ benen bi moy financement yi nga xamni xalé yi dañ koy soxla té ñu bëgg mu gaaw da nga xamni souvent lool mo leen di gàllankoor pour développer seen activité yi donc euh, pôle emploi bi xam ngeen ni président la bi a 4 milliards ndax 67 milliards il nga a 150 milliards yi sont jëm ci financement Thiès 4 milliards. mais tout le temps le président de la day wax nañuy baral suñu procédure nañuy une procédure pour que le financement soit di gaaw ci dinañ encourager les yi ñu pôle mais en même temps dafa a une banque qui a travaillé dama doon liggéey ak moom ci financement yi ndax dama annoncé 100 millions à jox les femmes tay yalla dogal na financé nañ 33 groupements ñu ngi demaat ci 67 pour boucler première phase bu 100 groupements mais dañuy demat fait 100 pour motal les 100 les 100 millions ndax 100 millions pour 200 groupements la. loolu maa manque koy continuer benen bi dama amone yéene pour jàppale ndaw ñi également Nous ma jigen ñi jàppale ko jeunes yi moo ma annoncé enveloppe de 50 millions pour xamni dañ ci tambalé ak ndaw ñi 50 millions bobu banque bi mo doon liggéeyal ak femme mom la koy liggéeyal ndax man comme li ma wax man damay jël caution bi en charge. ubbi frais ubbi compte yi ak intérêt bi nga xam ne banque bi da koy laaj dama koy jël en charge pour may ko xale yi moo tax ma leen ñi nga xam ne am nañ projet yi taxaw pare nañu nañ xam ne am na enveloppe 50 millions mën nañ tàmbaleeg loolu su 3 mois jotee ba ñu gis ne xale yaa ngi remboursé ñu ngi correct ci liñ leen kii ñu daal di yokk dem ba 100 millions loolu tamit day ànd ak li nga xam ni au niveau du pôle emploi mu ngi koy def pour gën a jàppale xale yi mais également man amoon na liggéey ak xalaat bu mu amoon depuis bi ñu dëggee ci gouvernement bi ak waa DER ba waxtaan ci won nag le délégué à l'époque waxtaan ak mom man ak Pape Amadou Ndiaye d'ailleurs ak ministre tourisme euh, Alioune sar ñu ni ko won dañu bëgg def un programme spécial pour Thiès ndax wa Thiès comme dugg nañ ci gouvernement bi dañ naan aussi kan lañ lañ leen di indil donc mo taxoon ñu waxtaan dal ni instrument yi nga xamni président de la République tégon nako en place nañ ko def bénéficier wa Thiès malheureusement tardé won na nak mais tay paré nañu aussi ak euh, équipe bi nga xamni mu ngi deer pour relancer wa dossier bobu waxtaan ak ñom pour que aussi wa Thiès tamit ndax quand am ci lañ bokk mérité nañ ko ñu xool nañ leen di def ba jàppale leen ñoom it ñu gën a bénéficier wu ci financement yi ak avantage bi mooy ñun li nga xam ne DER da koy laaj muy 5 pour cent ci financement yi ñun ñu dugalal ko xale yi jëlal leen ko en charge nga xam ne xale yi duñ fay dara ñun ñooy supporter loolu lépp pour ñu mu gaaw pour ñu financer leen loolu lépp daal ci lañ nekk jërëjëf.